ñu bokk sant yàlla buur bi ñu may fanaanuk jàmm ñu sant ko moom ñu defal ñu yeew ci jàmm waaye nañ leen bokk tàllal suñu loxo ñaan ko mu may ñu këndaluk jàmm ndax mooy buur bu yore jàmm mooy buur bu làmboog jàmm ñu di ko ñaan di ko ne allahumma anta salaamun wa minka salaam ilayka yacuudu salaam fa xayinnaa bisalaam wadoxinna al jannata daaraka daaru salaam yàlla yoo yaay jàmm yoo yaay méngoo jàmm mboolem xeetu jàmm yi ci sa muumel la ñu nekk kon ñu ngi lay ñaan ndegem mboolem xeetu jàmm yi ci yow la ñuy bàyyee ko te bu ñuy dellu ci yow la ñuy dellu kon yow mi yore jàmm joo xamante ne koo ko may mu doon ki jàmm ki am jàmm mooy koo xamante ne jàmm rekk lay dund ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may jàmm yàlla nga ñu dundal ci jàmm yàlla nga ñu jàmmal suñu réew yàlla nga ñu jàmmal suñu nekkin waaye yàlla nga ñu wërsëgal ñu dugg nga tàbbil ñu ci sa këru xéewal ba nekk fa yow nga xamante ne mooy këru arjanna amin ya rabbal alamin mbokk yi dana jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot bi léegi ñu ngi ànd ak yéen ci suñu mawdu suñu tembe nga xamante ne moom la ñu yëkkati woon fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di baaxee xeet wi ne leen képp ku yàlla buur yàlla tabaraka wa taala wërsëgal ñetti doom yu jigéen wala ñaari doom yu góor ñu doon ay mbokk buur yàlla dogal ci ñoom nga yar leen yarin bu rafet nga rafetal seeni yarin démb ñun doon waxtaan ak yenn ci anam bi nga xamante ne mooy gën ci yarin bu dee ay doom yu jigéen lañu nga jàngal leen aaya ba nekk ci suratul ahzaab fa yàlla di wax yonentu bi ne yow sama ndaw na nga wax say waa kër say soxna ñu di say njaboot ak say doom yu jigéen ñi ak mbooleem jigéen way gom yàlla ñi nañu wàccee seen jàllaabe seen jilbaab ba ñuy muuru loolu mooy li gën rafet la gën a ñoŋ loolu mooy la leen di aar loolu mooy la tax ñu di leen di xàmmee ba ñu di leen bañ a lor ci loraange buy jóge ko ci seytaane waaye loolu ma leen wax noonu buñ ko defee loolu mooy la leen di aar kaaraange boo xamante ne ña fi toggal seytaane agresseur yeeg say saay yi ñu bañ a jot ci ñoom ngir ñu bañ leen lor ndax yàlla da buur bi nga xamante ne moo buur bay jéggal doomu aadama bi ci rëcc-rëcc ba mu nekke waaye mooy buur bi nga xamante ne mooy dottil xéewal ak yërmande ba muy partager jëmmale ko ci doomu aadama bi ci nekkin ba mu nekkee kon yow mi yàlla dénk ay doom yu jigéen na nga wax say njaboot la yàlla wax yonent bi nee na digal na yëggee message bi njabootam ak doom yu jigéen ya ko yàlla dénk ak mboolem jigéen way gëm yàlla ñi tey nag ñu fas yéene jukki beneen bunt boo xamante ne ndegem yàlla dénk na la ay doom yu góor gala la waaye nang leen sol loo xamante ne boo leen ko solee mu doon njëriñ ci ñoom waaye mu doon njëriñ ci yow parent bi nga xamante ni bés pénc xale yooyu dinañu da doon ña lay plaidel ña taxawee bés pénc loolu nga leen sol dina taxaw mu nekk avocat plaidel la yow parent bi ak say doom yanka sol loolu mooy téere bi yàlla bi nga xamante ni keroog ba yonent bi doon tàqale ko dund bi ca xajjatul wida ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu baadi kitaab allahi wa sunnati yan nañu ko yàlla fayal keroog ca xajjatul wida aj bi nga xamante ni mooy mujjanteelu aj ba yonent bi defoon ci dundam muy ajub tàggatoo bam doon tàggatoo ak xeet wi mu ne ñu keroog ci discours bu mag ba mu defoon ca taxawaayu arafa woowu bokk na ci taraktu fiikum bàyyee naa leen loo xamante ne maa in tamassaktum bihima fekk yéen a ngi ngooy ci ñaar yooyu fekk yéen a ngi jëfandiku ci ñaar yooyu lanta dillu baadi du ngeen musa sanku sama ginnaaw moo ne yonent bi ana ñu bàyyi loo xamante ne buñ ko jàppee ngooy di ko doxee duñu musa sànk loolooy lan la yonent bi bàyyee xeet bi mooy kitaab allah téere bi yàlla bi di alquran ñaareel bi mu ne ñëw wa te loolu mooy sama sunna mooy sama doxalin kon képp ku bugg bañ a sànku képp ku koo xamante ne buggoo topp yoonu seytaane na ngoy ci lu ñu yonent bi bàyyee mooy téere bi yàlla di alquran ak doxalinam bi nga xamante ne mooy sunnam sallallahu alayhi wa ba tax na yow wayjur ba yàlla donk yow wayjur bi yàlla jox te mu dénk tu tànk njaboot nañu jël njaboot bu góor wi tey ñu waajal ko yóbbu ko ci internat bi mu war ñoo jàngal alqur'aan alqur'aan ba nga xamante ni yonent bi nee na bàyyee naa leen ko fekki naan si mooy du ngeen sànku waaye sama doxalin bi nga xamante ne mooy sama sunna fekki naan ko mooy du ngeen mos a sànku ba tax na xadis bi jële nañ ko ci suñu yaay day ummul muminin di wiijur way gëm yàlla ñi di suñu yaay aïsa radiallahu anha yal na ko buur yàlla gërëm anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qaal nee na naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne almaahiru bilqur'an maa safarati kiraamin barara walladi yaqra'u alqur'an wa yatata'ta fiihi fa huwa alayhi shaaqun lahu ajraan muttafaqun alayh njëriñ ba nekk ci njàngum alqur'an suñu yaay Aïcha radiallahu anha nee na yonent bi daf ne salaa sallam almaahiru bil ki mokkal alqur'an jàng ko jàngin ju mucc ayib jàng ko jàngin bu sell sax jàngin bu rafet yonent bi nee na kooku mu ngi tolloog malaaka ya nekk ci kuréelu malaaka yi ña yàlla dénk safaratin kiraamin barara ay malaaka la yoo xamante ne ñooñu ñooy malaaka yu yàlla dénk ñépp ñoo xamante ni dañuy jàng alquran malaaka yooyu ñooy wàcc ñëw di la déglu ba tax na yonentu bi nee na dee leen di waajaral seen gémmiñ laata ngeen di jàng alquran na ngeen raxas seen gémmiñ na ngeen boroosu na ngeen soccu ndax képp ku yëkkati baatu alquran di ko jàng moment yoo koy jàng yàlla dalay wàccel ay malaaka ñoo xamante ne dañuy ñëw taf seen gémmiñ ci seen gémmiñ ndax laylu alquran bay génnee ci gémmiñu kiy jàng alquran ñiy jël seeni nopp taf ko say gémmiñ kon ndegem malaaka yu sell ñooñu ñuy ñëw di déglu kay jàng alquran kon yow may waaja jàng alquran yonent bi nee na da waajalal sa bopp fa aaya alquran di génnee ci sa gémmiñ nanga ko nettoyé ba mu set ndax jamono bi nga yëkkatee di jàng am na ay mbindaafoon yoo xamante ne moom la yàlla di boole ñi ñëw di la déglu ñiy jël seen gémmiñ taf ko say ron gémmiñ ñiy jël seeni nopp di ko taf sa gémmiñ ngir neexaayu alquran ba nga xamante ne muy génn ci sa jëmm jooju moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama na almaahiru bil quran ki peek alquran mokkal ko wott ko jàng ko nekk ci nekkin ju mucc ayib ci njàngin ak ci doxalin yonent bi nee na kooku de yàlla da koy tolere ma safarati kiraamin barara malaaka yu nekk ci kuréelu malaaka yi te ñoom la yàlla dénk safara kiraamin barara malaaka yu sell ñoo xamante ne lépp luy mbiru alquran lañuy ñuy saytu waaye yonent bi salaa sallam nee na deuxième catégorie koo xamante ne moom la bëgg wax nii mooy walladi yaqra'u alqur'aan jëmma ngi nii koo xamante ne moom di day jàng alqur'aan waaye nag moom jamono bu mu koy jàng waaye tataata fiihi wa huwa alayhi saaqun lahu ajraan waaye tataata kiy jàng alqur'aan koo xamante ne peegul alqur'aan mokkalu ko waaye nag miin na ko ànd ak loolu bu koy jàng da ci daj coono mënut a wax xarf yi comme nu mu nekkee mënut wax baat yi kom nañ ko bindee waaye mu am yéene bu toll ni bëgg na kaa jàng yonent bi neena coono ba muy dej ci jamono ba mu koy jàng dañ koy fay coono woowu waaye yéene bu mu am ngir mu mën ko war a mën a jàng yéene boobu tamit dañ ko kay fay moo tax mu ne walladi ki nga xamante ne yaqra'u day jàng al qur'an wa yatataata fiihi mu di si am jafeñ-jafeñ ci jamono bi koy jàng mu di ko nab nabi wa huwa alayhi saaqun fekk moom da si am jafeñ-jafeñ jamono bi koy jàng xarf yi leeruñu waxin bi setul waaye ànd loolu mu ngi am yéene bu toll ni ak a neexoon ma mën a wax xarfi comme lu ñu nekkee coono boobu mu di daj ci jamono jàngum alquran dañ ko kay fay waaye difficulté beeg yéene bu mu am ngir mu nar ko jàng jàngin bu jekk yéene boobu tamit dañ ko kay fay kon ñu ngi lay bayloo xel yow parent bi ñu ngi lay bàyyiloo xel yow wuy jur bi ngal la waaye nanga jël sa doom yóbbu ko ci fi nga xamante ne mooy fa ñuy jàngee alquran ci internat bi mu jàng fa la nga xamante ne mooy comme lañ leen doon fàttali keroog mu jàng fukki saar yu mujj yi ci alquranul karim ndaxte yéen ngi fàttaliku woon ñu ngi taxawoon ak yéen ci saar bi nga xamante ne mooy euh, fa bur yàlla tabaraka wa di baaxe yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci suratul kawsar démb ñu war a ànd ak yéen ci suratul ñu war a ànd ak ci suratul nasr xanaa ñu boole ñaari saar yi élève tuut ba ñu war a yóbbu ci internat bi mu nar ñoo jàngal fukki saar yu mujj yi ci alquraan xanaa duñ def dara lu ñu jox ko mu daldi ñu jàngal la ko yàlla wërsëgal jamono bu ko wuy juram yóbboo ci daara ji ngir mu passé fa vacances ana lan la fa génnee waale su ko defee mu doon euh, saar bi nga xamante ne démb moom lañ leen war a jàngal waaye ci matadi doomu aadama euh, ñu fàtte ko ñu ngi koy jiggalu tey nag ci kattanu borom bi subhaanahu taala ñu war a boole saar ba wara war a jàng démb ak saar ba mu war a jàng tey mooy ñaari saar yi di suratul kaafiruun mooy bu démb bi bu tey bi moo war a doon suratul nasr incha allah kon nañ leen déglu parent ba yóbbu doomam ci internat bi mu passé fa daara vacance fukki saar yu mujj ci alquran yañ leen ne moom la war a tari minimum kon nañ leen bokk déglu élève bi jàngal ñëw suratul kafirun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun walaa antum aabiduuna maa a'bud walaa ana aabidu maa abadtum walaa antum aabiduuna maa a'bud lakum diinukum waliya diin kon élève bi jàngal nañu saar bi nga xamante ne mooy suratul kaafiroon élève bi jàngal nañu saar bi nga xamante ne keroog ba yéefaru màkk yi wax yonent bi ne na nga jaamu suñu boroom tey suba ñu jaamu sa boroom yàlla ne yonent bi ne du fi amee saar bi bokk na ci yiifaru màkk yi bu ñu waxee yonent bi ñu ne ko léegi pied de l'égalité lañu ñu bëgg soxna Mari nga defok kook ñun na nga jaamu suñu borom weer bi weer bu ci topp ñu jaamu sa borom yàlla ne jibril demal jox ko saar bi ne ko qul yaa kaafiruun laa aabudu maa taabuduun wala antum aabiduuna maa aabudu wala ana aabidun maa abadtum wala antum aabiduuna maa aabudu lakum diinukum waliya diin yàlla ne yenentu bi waxal yéefar yi ne waxal yéefaru màkka yi ñey jaamu xerem ne man duma jaamu la ngeen di jaamu te yenit du ngeen jaamu la may jaamu man ak ñama gëm duñu bokk di jaamu la ngeen di jaamu te yéen it du ngeen musa jaamu ak ya ngeen associé ca la may jaamu kon lu fi des mooy lakum diinukum waliya diin dem leen ak seeni diine leen seeni yoon wa ngeen nekk ma nekk ak samay njaboot ak samay xeet ak sama nit ñama topp ci la ma nekk kon lii mooy lañu élève bi bëgg jàngal démb te ñu fàtte ko tey ñu andi ko tey nag élève bi war ñoo mën a jàngal suratu nasr saar bi nga xamante ne yàlla buur bi tabaraka wa victoire bu mag ba mu diggoon yonent bi ne ko bu la dégmal see victoire boobu bu dikkee dafa am li nga war a mën a comporté woo yow sama ndaw bi léegi ñu bàyyi suñu élève ba dem ci internat bi ci daara vacances bi élève ba wuy juróom yóbbu ci daara vacances ngir mu jàng fukki saar yu mujj yi ci alquran tey ñu bàyyi élève yi mu jàngal ñu suratu nasr bi léegi mu bokk ci fukki saar yu mujj yi ya nekk ci alquran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 fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kaana tawwaaba mbokk yi lii mooy la yàlla dig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ida jaa nasrullahi wal fath fàttalikul keroog yow sama yenent bi sama ndaw bi bu dee ndimbal ba dogee ko fa man ndimbal ak xettali ba tukki fa man yàlla bu la dégmal see hmm? nga xamante ne ndimbal bi day ànd ak fatxu màkka mu doon ubbite màkka ndax ubbite màkka lu doon lu jafe la woon ci yenent mu ne ko ubbite màkka bu ma ko yënkeewale ma dooleel la da nga war a mën a ubbi màkk gor xërëm ya fa nekk waa màkk dootuñu jaamu xërëm yi ah su ko defee nag mu doon victoire bi nga xamante ne man yàlla maa la koy may mu tegal ko ci ne waraayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja ca ngay gis doomu aadama yi nga gis nit ñi waa màkk ak ña ci wetu ña dëkkee Makka mboolem doomu aadama yi ñuy dugg ñuy ñëw di jébbalu ci diine yàlla gis nga fii yàlla da ko ne fii diinillahi afwaaja diine yàlla kon diine bi kenn moomu ko yàllaa ko moom diine bi yàlla dakaa moomale boppam di diine kenn waaw ki koy moomale sa bopp nag danga xamul la nga moomale sa bopp ndax yonent bi yàlla yónni sax yàlla moomalewu ko diine bi waaw yàlla xam na ne keneen ku mu moomale diine bi bu ko bu bu fi kooku jógee ko léegi kuy kuy kuy kuy contrôler diine bi looloy problème bi ba tax na mu moomale diine bi boppam ndax moom xayyun laa yamuut moo fi nekk di yàlla du fi mus a jógee ilal abad moo tax mu ko waraayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja nga gis nit ñi ñuy bàbbeeku fi masharikil ardi wa magharibiha ci fa jant bi di fenkee ci àddina ba fu jant bi di sowee ñëppay tàbbi dugg ci diiney islaam diiney yàlla waaw yàlla ne loolu bu ma la ko defalee loolu bu ma la ko yenkee wale ba nga yëg ko nga gis ko di ko dund lenn rekk laa bëgg nga def ko mooy fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfir na nanga doon kuy sabbal cant bi la yàlla xéewalal na nga sabbal sa turu boroom di ko sant waaw nga sabbal sa turu boroom di wax subhaanallah nu mu gën a bëri ak li niroo waaye nag nanga ko sant ci xéewal ba la defal ñay ñëw tàbbi ci diine bi nag nang leen jéggalul yàlla te yowit nga bokk ci ñuy jéggalu fa yàlla ndax buur yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo lamboo moo meloo bokk na ci melokaanu yàlla innahu kaana tawwaaba ah yàlla mooy buur bi nga xamante ni képp ku tuub sa tuub bi sell di fekk yàlla mu doon kuy nangu tuub ku sellal tuuba kon yow mi nga xamante ni yàlla may na doom yu góor tey yow lañu baaxe maana aaya ngir nga jël sa doom yu góor yooyu dugal leen la nga xamante ne mooy ci daaray alquraan ndax ñoom it ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la yonentu bi ne almaahiru bil quraan ku miin alquraan yàpp ko njangin di sel waaw nee na kooku mu ngi tolloog maa safaratin kiraamin barara xeetu malaka ya nekk fa yàlla te yàlla buur bi tabaraka wa taala safara kiraamin barara waaye képp koo xamante ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala yënkeewal na la doom yu jigéen nang leen taxawee taxawaay wi ni ndax buur yàlla tabaraka wa taala bu la dénkee doom lala war yow paara mi nga delloo buur yàlla njukkal jël doom yi delloo ko yàlla taxawee leen taxawaay wi nga xamante ne mooy taxawaay bu mucc ay ba tax na jëlee nañ xadis bi saxaabi bu ñu naan abi umamata albahaliyi radiallahu anhu nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne iqra'u alquran ngalla leen di jàng alquran fa innahu ndax alquran day dikk keroog bés mu ñëw taxaw mu doon avocat li as shafian mu ca ka kay jàng rawaxu muslim muslim moo solo xadis bi mbokk yi nañ leen safoo alquran ngir alquran mën a doon avocat ba ñuy plaidel keroog bés pénc mbokk yi nañ leen jàngal suñu doomi alquran ndax alquran mu doon avocat ba ñuy plaidel ba ñuy ràmm keroog bés mbokk yi nañ leen faale ñooñu alquran ndax ñooñu alquran ñooy njabootu yàlla ci kaw suuf si su ko defee alquran mu doon ka ñuy plaidel fii ci àddina waaye keroog bés penc mu doon avocat ba ñuy ràmm lañ leen jàng alquran suñu kër yi ndax seytaane bañ a am place suñu kër yi lañ leen jàng alquran suñu oto yi ndax seytaane mu bañ a ànd ak ñun ci oto yi nañ leen jàng alquran suñu kër yi suñu niig yi fépp fu ñu mun a nekk buñ koy nab-nabi nañ leen ko def am na kenn koo xamante ne saa yu mu xëyee dina jënd la muy xool te jar ñaar leneen di jar ñeen fukk loolu aada ci moom naam war na kaa mën a jënd ngir mu xam lay xew ci réew mi ak ci àddina si waaye nag njëlbeenu livre ba mu war jox yitte nga xamante ne boo ko laalee am yiw boo ko jàngee am yiw loolu du beneen livre bu dul alquran yonent bi nee na ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatuhu ñooñu alquran ñooy njabootu yàlla ñoom la yàlla safoo ñoom la yàlla faale mbokk lii mooy njëriñu alquran waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jibbal béréb bi ñu war a tas xibaar ñu ngi ni taxaw saa ili na mawla jalla wa ala an yajcalana min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana jaclana allahu wa iyaakum min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy tànn la ci gën a rafet waaye dañuy jëfee la si gën a jekk amin ya rabbal alamin allahumma ya rabbi aati nufuusanaa taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicmal mawla wa nicma nasir allahumma ya rabbi aati nufuusanaa taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicmal mawla wa nicma nasir amin ya rabbal alamin allahumma ixfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahumma aminna fi awtaanina